ànd ak Nicolas Diane euh, bu ko defee dañuy bëgg quatre sëriñ bi dugg ci waxtaan ya rasulallah al wara نصلي سيدنا محمد فحنان في ضيق ولم نرجو فارجا بقينا سوى الله والهادي لذبل المكارم صدقت على ما قلت Come on. بمحمد وببنته وببعلها من قرية وابنيهم سقين آلان الهدى وبصحبه والتابعين لهم قول ahlatna ahlul makari wa mada wa marina sabiyanen Beri sakamal abdi wa sif darabah sopp yonent bi defal ca kaw ah, Mamadu nee na lawla nabi rasulullahi lan atrimu bil aqza bayna sanga ba ca Madina baya rasulullah wa wa yonent yàlla Ibrahima सदो الحوض تتمسيه الأحمر لكي كرم يا رسول الله كوسابويا من تيجي دخل ماني كوسابويا من تيجي دخل ماني مدينة للو أمل كم يفر بدنا تجمع يا الله من تيرا سني ويجو جيت الجبر Hallelujah. Asuma ti danse, biyani tuni asuma ti danse. Wahati yunnu nabiyuna wal khulafa ma sabihi nizi. I'm the way why you give me the kiss. I'm the way who my one. que van a كربايو أعلم داري أو يا دارو فلو الفوق مقام الله boy Yeah. You. اللهم في بالإسلام والإيمان رب العالمين برحمتك الوالد الرحمن الرحيم في يوم الدين إياك نعبد في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا صراطا مستقيما بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى غنى الصراط الجانب غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرض الكفر والطغيان امين اجابه الدعاء وشكرا لمالك ديار اللهم لا ترد دعاءنا بكثره ذنوبنا وقلة قسوئنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اني اسالك بحق الفاتح لما اغلق ان تفتح لي ابواب الجود والخيرات من جميع المخلوقات والمكسورات من المشكلات والمهمات والمكتومات والمخلوقات والمفهومات والفهم القادم الضغط بأعمال بالخيرات والسعادة كما قدمت الأنبياء والمرسلين يا رب الملك والملكوت في الأسر والجبروت بما سبق بأمر الدين والسماوات والأرض والأخوات وبحقنا في الحق بالحق أن تنصرني على كل مستقشرات من الامور ديني ودنياي باسم الحق رفيع المرفوعة والمولعة وشانع المصنوعة وبحق الهدي أتهدي إلى صراطك المستقيم طريق السلامة في الدنيا والآخرة لجميع المخلوقات من الأجمال والجمالات ألم الدور والساعة وبحق صلاتك عليه وعلى آله أن قدرك أن تجهلني من أهل الأسر والكرامة يا ربي توسلت بجاه حق قدره أن تمن علي بالمستفيد لبارك وبحق مقدار العظيم الذي لا يعرف قدره إلا أنت يا مالك العظيم وسماوات أسألك الله تسلم من قدري في درجات الأولى من أهل حياتي إلى دار السلام يا شريئا لمن قدره يا قريبا لمن سأله يا مجيب لمن دعاه أسألك يا الله يا الله يا يا ربي يا ربي يا ربي يا رحمن يا رحمن يا رحمن, يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجيب دعوتنا وتقضي حاجتنا جاي شيخنا وسيدنا أبي العباس حضرة جلالة الله تعالى عنه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dengar. Minggu ini kutang lo ada kat dia, kutang lo ada kat dia. Jadi gua dengan lawan mat. Dengan penjaga para santri. Jaga santri kita kami mau Sintong kami menyari tadi itu Mungkin akan menyebabkan Jika kau kumpul Nah lépp loo def ci lu baax am keneen ku ca jaar da nga am tiyaaba joo xam ne jam am dëgg wàññi ca tiyaabam ja dal kon képp ku fi toog ak képp ku jox saas nii dara ma njaay moom am na ci moom lii moom may la boo xam yàlla boo ko defal ak cofeeram ci usaas usaas nii nag benn baax rek laa ci wax waxi maam yi Cheikh Tidiane moom mooy wax tey ci Cheikh Tidiane moom dafa doon koo xam ne ñi fi nekk ci tànt bi yëpp ak ay rakam yi fi nekk sax man maa leen di ko am moom xam ne moom xam ne boo xam ne moom xam na dafa am suma benn rakk bu ñëw Fodé Seck mu nga Espagne bu mu nekkee Dakar di jaay ci kaltaate ci ci digal bi day toog maa moom ci bunt bi digam bi ci tàkku saan ñu toog ba mu yàgg rek ma seet ku sa nga ñëw rek ma gëm a yëpp sëñ bi na daa ngi def ci dara sëñ bi daal ñëw na naa mun ma jël fu nga gis sëñ bi daal ma ne ko oustaz nii mu sëñ bi bi mu àgsee rek oustaz moom mu ngay ñëw waaye yëpp li ma wax noonu bi mu ñëwee day maa fóode mu ne ma nañ àgg nga àgg gërgër maanga fuuli mu tëj kambi digam bi bay ñëwee ba àgg ustaal ñu toog ci salam bi muy wax ba mu yàgg mu ne démb ni ci ëjjuma bi dama doon waxtaan ci seen tijaan ne lépp lu nekk ci koowu ji jaawa ji yéeri ji ak di seen tijaan mu ne ma booro teet biñ lekkoon dëgguñ ko fiñ see rek yàgg géej yi mu ne Ousmane Mbengue ne xool leen parce que bi ma waxee ne lépp lu ko ne mu ngi koy saafara xoolal yàq njëriñ yi ñoo lekk jëf ngeen mu yëngatu ko. boo demee ko xool bu ngeen mu ne mu <laughs> ne bi loolu saay ak baatin bi jëm ci saay yële moom mi ngi nii baatin bi ba tey ngi nii moom ku wuyu jëf nga Cheikh Tidiane ndax gis nga yéen yàlla Mouhamad moom nag. ñun xam nañ ne Cheikh Tidiane ci la daan wax waaye Cheikh Tidiane daf ko jël li jàllale bi ci ci yàlla Muhammad bu ñu réeree mukk ne diggante yonent bi Cheikh Tidiane mooy yonent bi yonent bi mooy Cheikh Tidiane lépp lu mu amoon jox na ko Cheikh Tidiane yonent bi moom mooy seen jàng seen jàng yéen ci yàlla mu mat ndax alaaji Maalik ñett ni na ko sax nee ba mu dajee yéen ci Muhammad te ami sa buur ne ko anaamu rabbika wa anta waladi xaqan man maay kii yab suruhu yaay sama doom xaqani di tàmbali ko yaay sama doom xaqan diggante mu ak moom ñaar fukki maam ak ñeent mooy jaar diggante seex di jaar ak yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa luy ñaan ci xale ne xam ne bu demee dafa yàq diinam bu boobaa lu fekk loolu moo nekk njëriñ ci moom ndax moom ku nekk xam ne loo mën a am te amul yàlla amul am doom gis nañ fi doom yi ñi fi ñaanoon daaw ak daaw ji yëpp ñi ngeen mu Mohamed Abdoulaye ñi ko yëndi moom la ci am ci sëñ Tijaan ak yéen xam ne li mu waxoon daal ku lu gisee daal yàlla mu xam ne gënu ci yow wala nga xam ne yow ci yow la des bon loolu nañ koy ñu leen koy barsante ngeen xam ngeen dellu ko ne tudd loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu